jërëjëf mbokki internet yi bu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ak fay mën a ne dellusiwaat ak yéen ci beneen jataayu xam-xam kii may dalal xam ngeen ko sëriñ Abdou Khoudous Mbacke doomi sëriñ Mame Thierno Mbacke ñu ko ñaanal ko sama borom bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu wér barke Cheikhul Khadim di sët sëriñ Mbacke Kajoor góor yàlla jàmbaar ja neewoon naa leen saa bu ma toogee ak moom ngeen yéemu suñu émission mujj bi defe naa seetaan ngeen ko c'était avant match Sénégal bi. Mhm. bu ma juumul c'était le dimanche. Sénégal war a fubal lundi. Mhm. waaye sëriñ bi li ma gën a yéem ci mbir mi dinaa ci dikk. Mhm. mooy da nga ni mu na Sénégal yi moytu penalty yi. loolu moo am ci la ñu éliminé. bu ñu mënee sol may yu weex yi ñu moo gën. ndax ivoiriens yi heure boobu daf leen fekk ci seen béyti. noo ko waxee woon sax béytul xaw yi béytul xaw yi maanaam seen waaw seen kër doole. Mhm. te effectivement yi nga xam ñoo jëloon ndaara ci poule ba. Mhm. équipe yëpp dóor leen. Mhm. keroog bu ñu ñëwee kattan gi ñu ànd ak Sénégalais yi moo jaaxal ñëpp sëñ ñu bàyyi la nga nuyoo ba noppi nag ñu développé loolu ñëwaat nag ci mbiru élection yi. dañ koy pousse dañ ko pousse Karim dina bokk Jomaay Sonko waaw allah jërëjëf buur ñu ngi lay fay nuyoo bu baax a baax yow di nuyu waa seen bi yëpp Bprod Media. di leen ñaanal jàmm. Euh, di ñaanal Cheikh Mouhamadul taxal Basir suñu borom yàggal ko fi te wéral ko amiin amiin di ñaanal bu baax suñu jàmbaar ja sëriñ maam Thierno Mbacke saa boroom yàggal ko fi loolu te wéral ko. buur dañuy dikkaat tuuti rek ci li ñu doon wax ci match bi passé match Sénégal Côte d'Ivoire. Mhm. waaw xam nga waxoon naa la fi leen xam-xamu biddiw moom du mhm. biddiw moom du fen moom benn am ki koy wax di ko xam wala mu ñàkk koo xam waaye biddiw moom du fen mhm. euh, loolu ñu si waxoon na ci wàllu penalty ak seen ñu porter ay maillot blanc mhm. ndax waxtu boobu ñu doon football burjul asad moom moo doon daw te burju boobu mooy burju bi nga xamee ne ci la Côte d'Ivoire am indépendance mooy seen baytul xayaat mhm. mooy seen buñ ko dee xool ci nit ki mooy baytul xayaatam baytul xayaat nag dama laa waxoon ne la fëlëg bi dafa am ñeenti kër yoo xam ñoo ci ëpp doole bi ci njëkk mooy taalian bi ci njëkk mooy xaasir bi ci tegee mooy saabix muy juróom-ñaar bi ci tegee mooy raabix muy wataddul ard ba wax nit ki ni bu fekkente ni bëgg am ampleur wala mu bëgg a bu bëgg mbiram jëm kanam ci taalian la koy teg bu fekkee dafa bëgg a dominer àdduna ci wasatu sama la ko teg mooy ci xaasir mm-hmm. bu fekkente ne dafa am ñu mu noonal te bëgg ñu jublu ko kooku simal ci ci càmmoñ bi lay doon muy këru juróom-ñaareel mm-hmm. bu fekkente ne da nga cee bëgg def lu bon wala ab safaan baytu raabix ngay jël muy këru ñeenteel kooku moo nekk ci watadul ard mm-hmm. bi gis nga nag bi ñuy fubal burjul asad moom moo doon daw ñun sax am nañu lu ñu xaw a may sens ba mbir mi demewul dëgg-dëgg noonu mooy kawkabu zonratu bi ñu tàmbalee. kawkabu zonratu boobu ñu tàmbalee dafa am lu muy joué ci Sénégal dafa am lu muy joué ci Sénégal ndax couleur ba. Mm. waaye nag bu ñu soloon maillot bu blanc billaahi la ilaaha dañu am ndam. dañuy dóor Côte d'Ivoire ah, kon dañuy dóor Côte mm. waaye nag comme Sénégal daa jafe waxee te ñu bare ba du ñu dégg ñaari fi ngay waxee. Mm. Mm-hmm. waaye loolu xam-xam dong la du dara. Euh, léeg-léeg nit yaakaar ni ay am na ñu ma woo sax léegi am na ku ma woo démb dong am na ku ma ci woo Ibrahima ñu ngi koy nuyu bu baax baax ñu ciy waxtaan mu may wax ni carrément loolu naka la mën a demee jàpputoon ni loolu mën naa nekk daal mbir di ñëw nga ciy wax ay xew-xew yu ci am ak naan man ko mm. déedéet xam-xam xam-xam rek la tudd waaw leeru yàlla la koy wëndeel goo xam ku ci nekk noo ci sonné rek noonu nga koy amee mm-hmm. kon buur ñu ngi lay sant bu baax loolu rek lañ ci doon def <laughs> incha allah moo taxit noonu la demee mm-hmm. dóor nañ ñu Euh, mhm. Côte d'Ivoire égalisé na. Mhm. par mhm. série pénal maanaam par par penalty. te ci biir ay série penalty. ci la ñu dooree ci ñu gagné. Eliman Ndiaye mi ñëpp foogoon ni dana dugg ca waxtu wa. ca ñeexital ga lañ ko indi. Sadio góor góorgóorluñ ci moom gis nga muy lu leer. keroog bi ñu koy wax gis naa sax ñuy commentaire. di weddi di wax man leen am benn waa ju sonn ndeysaan ci commentaire nee da ngeen di déglu li sëriñ bi wax. waaye man boobu macha allah dégg naa la. sëriñ bi Karim Wade. Euh, mm-hmm. dugal na. Mm-hmm. assemblée nationale ba ñu mm-hmm. jox ko dëgg gum. bu mbiree sottee. fa muy mujj. waaw ah. mooy rapport élection yi. jërëjëf buur xam nga dama laa waxoon fii keroog sama émission bi mujj rek yaakaar naa waxoon naa la ni la état bi pare gu ñëw. waaw pare gu ñëw wax nga ko waxati ko. waaw ah, waxoon naa ko waxati ko pare gu ñëw. ñu mm. ngi ci ay mbir yoo xamee ni ñoom. ñu ngi ciy dox te bu buñ ca noppee dina dina garaaw lool ndax waxoon naa la ci sama kii yu njëkk yi ni la Macky Sall dafa mel ni eh, booy xool ci moom taxawaayam day mel ni nguur dafa dañagul ci loxoom. ci loxoom waaw wax nga ko wax. waxoon la ni la Amadou Ba booy xool dafa bokk ci nit ñi gën a jege mbir mi. Mm-hmm. waxoon ci Karim Wade waxoon ci Bougane ak keneen ak keneen ak keneen ba tudd ci Ousmane Sonko. Mm-hmm. fi mbir mi toll nii nag da ngay gis ni ñoom ñu ngi ci xeex boo xamee ni maanaam xeexu psychologique la waaye nag xeexu baatin la. baatin la ndax bi ñu ngi def ay sarax ak ay tegtal yoo xamee ne ñoom bu sottee sénégalais yëpp daañu jublu ñoom seen candidat bi ñu bëgg ñu jublu ko te kenn du ci man dara. Hmm. te gis nga élection yi boo moytuwul sax nag mën nañ koo bañ def ci waxtu wi ñu koy sàkkoo. Hmm. le 24 février ah, boo moytuwul sax mën nañ ko bañ def ci waxtu boobu. Hmm. donte ni sax nag mën nañ ko cee def ndax li tax mooy. Euh, Amadou Ba fi mu taxawee baax na tey mbooleem candidat vingt candidats yi nga xam ne moom la ñu génne ci biir liste bi fi ñu taxawee baax na loolu day wane ni euh, ñoom seen bis ba ñu jublu am na xaw yi mooy am na kàttan mooy mën nañ caa am na jaa mooy ñoom ñëpp mën nañ caa egg kon loolu day teg leen bis bi mën naa am mm-hmm. waaye boo xoolee état bi dëgg-dëgg ñoom seen i pexe moom egg gut te bu eggee Sénégal yëpp dañoo xam ne état bi seen pexe egg mais mbirum Karim est-ce que jeex am na gàllankoor mais mbiram jeexagul mm-hmm. jëmmi Karim Wade moom moo am gàllankoor mais mbiram jeexagul moom nag dafa mel dafa desee bëgg bëgg mbir mi moom ci jëmm boo ko dee day mel dafa desee bëgg jubluwaayam ci mbir mi ah, leerul jubluwaayam ci mbir mi dafa leerul ndax boo xoolee moom ci ay àndandoom rek ñoom seen jëmm danañ xam ni kii ñi ngi koy épaulé épaulé waaye dese naa bëgg mbir mi dëgg-dëgg mm-hmm. ndax Karim Wade bu bëggoon mbir mi dëgg-dëgg nag dana bokk ci nit ñi nga xamee ñoom ñooy njëkk a génn ah, ci ci prénance yi dana bokk ci nit ñi nga xam ñoom lañu ñu njëkk a validé waaye mm-hmm. ah, des na ko yitteel dëgg-dëgg mm-hmm. kon buur euh, mbirum politique moom dama bëggoon ñu ñu ñu ñu gàttal ci tuuti rek <laughs> waaw émission yi gën a jige <laughs> bu ko defee ñu am ci ay leeral yu yaatu yoo xam ne ni war nañ ko cee mën a def ndax xam nga élection yi ni mu jub see nii nii dafa am message boo xam bis bu sax dama koy bëgg di jàllale fat di ko fàtte. Hmm. xale yi nañu leen di tëyee di leen bàyyi xel bu baax a baax rawatina xale yu góor yi. yu ndaw yi xale yu góor yu ndaw yi. parce que xam nga ñoom sacrifice bi ñu leen di digal ci jamono jii nii day mel ni maanaam pour ñu dominer Sénégal xaw yi la kattan moo koy def kattanu googu nag kattanu baati googu nag ci góor lañ ko mën a amee xale bu hmm, ci la nekk. moo tax xale yi nañu gën a veillé ci ñoom góor ak jigéen ñëpp waaye nag ci góor ñi la rawatee nañu veillé ci góor ñi bu baax a baax. nañu veillé ci góor ñi hmm, sëriñ bi Mhm. man dama lay fekk saa su ne ngay tiim ay mbir. tey mhm. maa ngi la fekk yaa ngi boo yaa ngi. Mhm. Euh, tiim benn ndomb goo xam ne dañ ko booteel ab téere. Mm, waaw boole kook say sunguf waaye àll waxaañar bi nga jël nag man tas ci dërëm dërëm bi. man mooy sama problème. waaw jërëjëf buur xam nga doomu aadama dañu am ay problème yu bare bari. problème yi bokk na ca lu mel ni wàllu cat. cat léeg-léeg mu téye ni téye goo xamee ni ka buy liggéey day gis ni moom mi ngi liggéey te alalam mënu koo jariñoo munta am munta am mhm. mu gis ni moom mi ngi liggéey alal jaa ngi ñëw waaye day tasaaroo ci loxoom mhm. ñu ni ko loxo bi daa bënn ak nangam ak nangam fekk du loxo bu bënn cat moo koy bëgg a rey mhm. am ci ñoo xamee ni ngoro gu dugg mu tas am ci ñoo xamee ni bépp liggéey bu ñu tàmbali mu yàqu loolu cat moo koy def cat yooyu nag dafa am ay saafara yoo xamee ni moo ci gën a gaaw ci ñun ci ni ñuy jëflante ak nit ngir ko loolu mën a wér loolu nag bokk na ca mooy gàllaaj yi ñu teg nii yii bokk na ca yi nga xam ne ñoom lañ koy saafara mhm. bu yi jàllee da gis ni leneen li ci tege ay sangat lay doon sangat gi nga xam ne moom la ñuy dindee wàllu cat nga xam ne day dindi cat di dindi di dindi def def ak yu mel ndax xam nga buur cat ak liggéey dafa dañuy nuroo nu ñuy manifesté wu ci nit waaye bokkuñu waaye bokkuñu mhm. parce que ay couleur la ñu bokkul seetkat dina ko xam boo xoolee ci jadwal bi ni di nga xam li may wax ay ay couleur la ñu bokkul mhm. bu fekkente ni cat da ngay gis ni dafay mel ni day xaw a ñuul day xaw a ñuul ci nit ki. loolu war ñu nit ki làmmiñ bi daa ñuul. très bien da gis ni cat day xawu ñuul ci nit ki léegi cat boobu bu nekkee ci nit jàpp ko dana ko yàqal lu bare bare ci ay liggéey waaye dafa wuute ak nag bu liggéey nekkee ci moom. Hmm. bu liggéey nekkee ci nit ki dangay gis ni moom ci jëmmam du sawar ci jóg dem bërëbu liggéeykaay ba. saa bu bëggee jóg day ah, ah daal sawaru. ba très moom ci jëmmam du sawar pour jokkoo ak ñi mu war a jokkoor pour liggéey. Hmm. moom ci jëmmam du sawar pour jël liggéey def ko ni mu ko waree kooku liggéey la liggéey dafa nekk ci moom. Mm. am ci leneen luy ñëw dolli ko ca nag mooy lan muy rab. rab léeg-léeg mu jàpp nit jàppin woo xamee ni day defe ni cat ko jàpp wala mu ko jàpp fekk ni ñetti mbir la yu lool. Mm, mooy diggante cat ak rab ak liggéey bu bon liggéey bu bon ñetti mbir la yu niroo te wuute lool nag boo ci saafara boo ci jaawale ba saafara ba saafara mu ja du tax mu wér faw da ngay xam mu doon nga doo ko mën a saafara mu doog a wér bi dul loolu rek du mën a wér rab bu nekkee mm. ci nit bari na lu mu koy def loo ndax li cat di def lépp rab da koy def waaye dafa am lu mu cee dolli mooy da koy ñàkkloo es da koy perteloo espoir ci boppam. gaaw a mer gaaw a mer ba pare boole ci moom ci jëmmam dafay gëm ni ci bànneexu bakkanam rek ci la war di dox. Mm-hmm. loolu rab da koy dafay bokk ci li li mm-hmm. muy def. Mm-hmm. rab dafa bokk ci encore li muy def mooy dina jàpp nit léeg-léeg nit góor dina ko jàpp di ko fooy la boppam ba dootu doon góor. billaahi wal kitaab. dina jàpp jigéen di ko fooy la boppam ba dootu soxla góor. léeg-léeg da ngay gis jigéen ñoo xam ne dañu lay wax ni la ñun amatuñu sentiment ci góor mais ci jigéen lañ ko am. loolu rab moo koy. waaw waaw léegi nga gis góor goo xamee ni que da wax ni la mu amul sentiment ci jigéen waaye nag bu wéetee dafay yëg boppam. waaw bu jëlee saa dugg ca wanag wa. dafay yëg boppam. Mm-hmm. loolu rab moo koy def ci nit. gis nga taxawaay yii na dafa xaw wuute léeg-léeg nag rab bu jàppee nit cat dina jàpp nit ba tëye ngóoraam cat dina jàpp nit ba tere koo sëy. Mm-hmm. dégg nga liggéey dina jàpp nit moom mu takk xala la dina eh. jàpp nit ba takk ko ba ba tee koo doon góor dina jàpp jigéen ba tere koo sëy rab nag moom dina jàpp góor ba tere koo doon góor ba nga xam dootu mën doon góor saa bu jubee soxnaam na këlëb saa bu jubee soxnaam dégg buur bu ko defee mm-hmm. gis nga ni rab ci jëmmam dafay téye góor ba moom ci jëmmam dootu mën a doon góor mm-hmm. nga xam dangay gis ni bu jubee soxnaam rek day daal di egg fa mu jëm mm-hmm. wala jëm mi bantu sàkkara bi du dëgër jëmmi bantu sàkkara bi. te ñi koy jàmbat jamono yi dafa bëri sëriñ bi dafa bëri itam dañu jàpp ni sax ngóora moo leen war a faj. da nga gis ko la ci ni naan naa bu ne. naan naa sunguf su ne may dara. xam nga xam nga waxoon naa ko fii defe naa maanaam wàllul tële ak néew kàttan dudul benn tële mooy nit ku mënul dara. Mhm. néew kàttan nag mooy la nga mënoon mënatoo ko kooku bu ko neexee mën na jël ay garab waaye kooku ci jëmam sidit bi dañ koy delloo jëmmi sidit boobu noonu dem ba tële dañ koy delloo ba mu delluwaat fa mu nekkoon ba dëgëraat comme ni mu dëgëree woon. te du doon ay sunguf ak yooyu. te du doon ay sunguf du doon ay su benn frotté la ak lu nu lay jox ci wàllu biddiw ak lu lay defal képp nag rab mu jàpp jigéen jàppin woo xamee ni moom ci jëmmam du bëgg góor du mën a fréquenté góor du bëgg a gis góor te pourtant moom bu wéetee dafay soxla góor. Mm-hmm. moom ci jëmmam dafay sentir ne am na lu muy sëyal moom ci jigéen ki da koy dafay sentir ne am na lu muy sëyal. Mm. moo tax wàllu rab doon lu doyo doyu ñun nag képp ku ci jëflanteel traitement yi daanaka 3 jours 6 jours ba 9 jours la incha allah. Mm-hmm. bu dee ci cat bitim noonu la maanaam set 3 la 7 ba 14 bu dee wàllu liggéey bi moom 3 la ba 7 mu jeex moom lañ koy traité léegi nag buur. dafa am leneen lu ci tege mooy gis nga nit ki bu yooyu yëpp dañee ci moom. Mm-hmm. faaw alal dafa war a ñëw ci moom. waaw naa war a ubbeeku. waaw faaw dafa war a ubbeeku. Mm-hmm. léeg nga dégg nit ku ne la damaa tëju nangam ak nangam nangam nangam nangam nangam waaye boo ko xoolalee moom ci biir ne kat damaa dem ci diw ñu ne ma liggéey la nangam nangam waaye yow sa jëmm boo xoolee yow mi xam biddiw boo xoolee da xam ni kii lu dul cat jàpp ko wala nga xam ni kii lu dul rab jàpp ko mm-hmm. léeg-léeg buur nit di dox bu mu jàgg mu dëgg liggéey jàmbur lu mel ni foo xam ne dañ fa doon fiir nit moom mu far fa jaar moom mu yem ca moom mu yem fa mm-hmm. te xam nga fiir yu mel noonu dañ ko dul adressé maanaam duñ ko adressé duñ ko wutal maanaam bii pour diw la très bien duñ ko adressé mm-hmm. dañuy dàkk rek fi mu tàmm jaar waxtu wi mu fa doon jaare ñu teg ko fa Hmm. est-ce que xam nga li ma la. nga ñëw dal ca. mu ñëw dal ca. mu doon sa yëf. mu doon yëfam lu mu yàq yàqal la. lu mu yàq yàqal ko. Hmm. yàqal ko moom yàqal ko waaw lu mu yàq yàqal ko. dégg nga <laughs> moo tax buur uh-huh. xam-xam doon lu doy doy waar xam-xam biddiw nag boo ko xamee da ngay xam ismu zahir yi xam ismu baatin yi. loolu hmm. mooy mën a tax nit ki heure bu dikkee ci yow bu la woowee rek rapidement di nga mën a xam lan mooy soxlaam. waaw di nga mën a xam lan mooy aajoom dëgg-dëgg. moo tax boo ci jëflanteeg moom day yomb lool moom ci jëmam day defe ni yow xam-xam bu ñuul ngay jëfandikoo mm, da ngay luxus wala da ngay ah, nangam fekk demewul fekk am xam-xam donc koy wane dong la sëriñ bi dërëm yi nga yor dafa am rapport ak alluwa xànjar bi waaw xam nga alluwa xànjar bi nag euh, moom liñ ci liggéey mm. gaa yi nga xam dañuy liggéey lu ci wàllu alal ak yu ni mel mm. ñoom ñoo ko moom parce que booy xool ñoom ñoo moom alluwa xànjar bi ñooy moom it dërëm yi parce que dërëm yi booy xool daanaka nit ku ci nekk da ci am rek juróom-ñaari dërëm Mm-hmm. ñi ci liggéeyal ku ci nekk da ci am juróom-ñaari dërëm loolu ni ngay gisee ni dërëm bu ci nekk rek daanaka boo ko doon xool juróom-ñaar yoo jël ko moom waaw mm-hmm. ah, juróom-ñaar yow ci jël rek xam nañ ko ko moom noonu lañ koy toppa ba bu jeex moom na ci wàllu alal képp lay dox ngir mm-hmm. alal dong lay dox moom ndomb bii daanaka ñoo bokk yam ñoo bokk lu ñuy liggéey ak jaaro yi xam nga buur nit dafay am lu koy jox alal day am yoon wu muy jaar pour mën a am alal yoon yooyu nag bokk na ci mooy bu cat dañee ci moom liggéey dañ ci moom rab dañ ci moom dafay am lu koy ubbi ngir mu mën a am alal la koy ëpp ngir mu doon alal nag bu la hmm. neexee mën na doon sangat bu la neexee mën na bañ a doon sangat bu la neexee mën na doon bàgg bu la neexee mën na doon ndomba bu la neexee mën na doon luñ koy suulal ci kurus bu la neexee mën na doon luñ koy liggéeyal ci dërëm yi. waaye sëriñ bi bàgg bi tamit am na solo de. waaw bàgg bi de moom ñi ko ñi ko ñi ko ñi ko ñi ko ñi ko am ñëpp xam nañ ko moom daanaka. bàgg bi mais dama gis ni euh, sëriñ dafa so sopp lool parfum. waaw ak cuuraay. xam nga day dund ak waxtu. Mhm, mhm. ak wérd. xam nga buur ñun ci biddiw la ñuy dox ñun xam-xam biddiw la ñuy boo xoolee jadwal bi da ngay gis ni euh, heure yi ma ci def muy rafin yi heure bu jotee dafa am lu ma ciy liggéey parfum yi nga xamee ni parfum yi du du question que jëmmi turu parfum bi laay soxla wala dara waaye léeg-léeg couleur parfum bi laay soxla lu moom laay yittewoo. Hmm, na rose ah. mbaa mu jaune wala léeg-léeg nga dikk fekk fii fanweeri parfum yoo xam ne bokkuñu couleur dëgg-dëgg ci boo leen seetantalee. Hmm. dikk fekk fi ay cuuraay yoo xam ne benn bokku ci nit bu ci nekk xaar ba ci xawaatim yi ñuy rëdd rek. xawaatim bu ci nekk xawaatim bu ci nekk dafa am couleur boo xam ne moom moo koy mën a téye. lu euh, caage nii da jël rek ci big bu ñuul bi daal di bind nangam déedéet bu fekkoon nit ki day liggéey lu ci wàllu bayra kooku big bu rose bi moo koy def. Hmm. xam naa loolu sax du ma ci gudd <laughs> waaye. ci wàllu charme. waaw <laughs> ah. bilaay sëriñ bi dégg naa la man man man sëriñ man boo ma doon jàngal kuy gaaw mokk la. <laughs> dégg nga buur eh. maanaam. du caage ne nit ki day dikk rek nga dagg sa benn aw faax nangam nangam xam nga waxoon naa la ne la biddiw yi biddiw bu ci nekk dafa am xaatim bu mu moomee. Mm-hmm. biddiw bu ci nekk dafa am couleur xaatim bu ci nekk dafa am couleur boppam. aaja ju nekk dafa am couleur. kon couleur am na solo ci mbir ba pare boole ci bés bu nekk dafa am couleur waxtu wu nekk am couleur uruf bu ci nekk dafa am couleur boppam. yaakaar naa bu ma juumul am na ko ma ko mos a envoyé mm-hmm. benn xawaatim bu ma dogoon daanaka am na ci 15 couleurs yu ci nekk dafa ma woo ma laaj ma ne ko nii nii lay demee. kon du couleur bu ñuul bi rek intéressant déedéet léeg-léeg ma daggal nit xaatim boo xam ne moom ci jëmam du gis li ma ci bind feuille blanc képp lay bind lay gis. fekk na feutre bu weex nga ko bind. fekk ni feutre bi ndoxu limon laa ci def moom laa ko bindee. Ah, message man dama gis léeg-léeg ñuy bindee xaatim ci deretu ganaar. ah wala deretu. am na am na am na fi ñetti xaatim yu fi nekk. benn bi deretu kàkkatar lañ ko bindee benn bi deretu ñaari dereti ginaar boo ko xoolee da xam ni. xaatim yi yow sa jëm boo xam da nga xam lii deret la waaye xaatim bi lan mooy njariñam nga dul xam waaw wala lan moo ko boole deret ci njariñu xaatim boobu mooy bu fekkente ne bi ñuy bind ci deret ci kàkkatar bi ci xaalis képp lay dox bu fekkee bi ñuy dund bind ci ginaar bi dafa am ñaari fànn ñaari wajo benn bi ci xaatim lay dox benn bi nag mooy ku la liggéey mu dellu ci moom boobu baaraas la moom mooy ku la liggéey mu dellu ci moom te boo ko xasee jëfandikoo maanaam bépp liggéey bu nekkoon ci ak lu ko manoon a def rek moom ci jëmmam day sentir ni kan lam defoon diw delsi na ci moom. fi may tëjee sëñ Abdou ndax nga ñemee wéetaay. waaw xam nga buur nag euh, ab sëriñ moom bu nee la day liggéey ci xam bi diw rek da koy xool diggante ma lan la. Hmm. que xam nga yow comme da ngay ras ay minutes ay secondes ngay ras ay secondes ay cerce yu daw nga di ko xool. Hmm. heure sàngam jamono bu nekk da ngay xool ban cerce moo nekk gis nga ba ma toog yaa ngi gis may. may ngi gis am heure yu may bañ mu raw ma di nga xool ban tiers ban tiers ban seconde la toll la heure bi toll ban minute la toll. minute bi ban biddiw mooy daw ban manzila mooy daw ban burju mooy daw biddiw bi lan mooy urufam heure bii di daw nii yan yan araf ñoo ci daw yan araf lañ moomee. Hmm. parce que araf yooyu dañ leen di denc comme ni ngay jëlee sa xaalis nga dépp ko ci sa ci sa compte Wave. Hmm. dañ leen comme exemple xaalis bi ñëw na léegi nii ma dugg ci weef bi dem dépp koy sama compte denc ko ngir ci kanam dama koy soxla hmm. biddiw bi dafay daw wala heure bi di daw am ñetti xaraf yoo xam soxla nga ko da koy capté foofu nga denc ko dafay am ci anam goo koy denc ko xam ne boo ko soxlawaatee soxlawul ngay xaar biddiw ba di dellusiwaat di daw da koy jël nga jariñoo ko hmm. est que dégg nga ma bu baax kay noonu nag la demee xam-xam buur damaa bëgg nga xam xam-xam du ay caaxaan hmm. euh, am na kilifa gu ma woo keroog ñuy waxtaan mu ni ma mun ma li ngay doon wax ci biddiw dama ko mës a xam ci biddiw man nga xam biddiw nag mooy xam-xam bi bàyyiwul dara. waaw bàyyiwul dara bàyyiwul dara. bàyyiwul dara bàyyiwul dara bàyyiwul. mag ña ca lañ toogoon de. ñëpp ñu bare ñu ñëpp rek daanaka booy xool ci biddiw lañ doon tegtaloo. Mm-hmm. ngir maanaam ay mbir yu baree bari ci àdduna ngir ñu mën koo doxal parce que dama koy wax toujours nag wax dëgg yàlla Afrique bokk na ci li ñu tardeel dëgg-dëgg mooy ñàkk xam astrologie ak astronomie. Mm-hmm. dama koy wax toujours liñ ci xam maanaam lii ñu ci wax ni muy wàllu faj ak baati nag affaire yi ni moom moo ci gën a teer a ci li muy jëriñ dëgg-dëgg. Hmm. waaw ci li muy jëriñ dëgg-dëgg loolu ci gën a teer buur ndax xamoon nga ni boo xamee réew sàngam ni kat burju sàngam moo ko tiim mën si la sàngam bu biddiw sàngam moo koy piloté. réew moomu nu la neex ci àdduna mën nga koo def te billaahi lazi laa ilaaha illaa am na politiciens yoo xam ne bu ñu ma woowoon ñëw toog ñu waxtaan buñ d'accord ñooy gouverner rawal man gëm naa li nga wax wallaahi alxasim ñooy gouverner barki sëñ Mbacke na gëm naa li nga wax maanaam biddiw dafa am xam nga dama ko waxoon jamonoy monument kii bi renaissance africaine bi doog a génn hmm. monument boobu biñ ma ko waxee man leen dafa am lu bare bari lu muy symboliser te daf koy yàq ci askan bi hmm. yaa man leen li feeg mu ngi taxaw foo du jóg Sénégal li mhm. feeg mi ngi taxaw musique du jóg Sénégal caaxaan du jóg Sénégal te bés bu cinq dafay gën a yokk. Mm, ak fañ ko def. ak fañ ko def ak bis bañ ko def bu doon defoon naa ci ay vidéo spéciale loolu yàgg na yàgg na trop defoon naa ci vidéo mm. parce que dafa am ay mbir yoo xamee ni que ñi koy def dañuy defee ni am na ci kenn ci askan wi comprendre ko. Mm. fekk am na ci ay ñenn ñu ko suñu borom baaxee. xam-xam leeru yàlla la. walaay leeru yàlla la kon buur ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm. ñoo gën a bëgg <laughs> tey nag gis yi dama ànd ak duud rek ñëw ba Thiès. waaw ndeysaan fekk sëriñ bi ci mm. bërëb bi tey man dama ko ne noppalul bàyyil ma ñëw. macha allah waaye wax dëgg yàlla am na solo. <laughs> Mm-hmm. mbégte la wax dëgg yàlla mm-hmm. fierté la. Mm-hmm. ku mu jëflanteel rek dina mm-hmm. amal retour ci ñun wax dëgg yàlla mm-hmm. yonent bi waaye retour yëpp ay retour yu mm-hmm. positif rek la buur li ma sëñ bi waxoon de teg naa ci sama bët la ma jëflante woon ak man de sant naa donc ñu di ko ñaanal rek euh, yàlla toll la ko fa mag nga tolloon amiin barke Serigne Touba te dundam am njëriñ loolu ndax dundam am na njëriñ loolu amiin barke Serigne Touba amiin kon gars yi di leen jox dig daje ba beneen yoon sur bi bi Promedia ak Bour Gueweul